mbokk yi gannaaw buñ sante buur yàlla subhaanahu wa taala noo ngi julli di ci sang bu tedd bi di ar rasulul mustapha sallallahu alayhi wa ñu bokk sant yàlla buur bi nga xamante ne moo ñu xéewalal ñaari xéewal ya ñu jot a jëfandikoo ci tàmbali bés bi benn bi mu di xéewalu jaamu yàlla yam ñu xéewalal ñaareel bi mu doon xéewalu wérgu yaram yam ñu bàyyee ba tax na xéewalu wérgu yaram ba ñu yàlla bàyyee ñu dundu biig ci guddi mu wërsëgal ñu ñu jëfandikoo xéewal bam ñu xéewalal mu doon xéewalu nelaw yenent bi sallallahu alayhi wa sallam ma yàlla xamal xam-xam ba kenn yorul moo ñu ni xéewal boobu de képp ku ko yàlla yenkeewal benk jëfandikoo boo ci noppee da nga war a sant yàlla anamu sant yàlla bi nga war a sant yàlla nag di yow yaa kay xalaatal sa bopp di yow yaa koy créer wala yaa koy foog waaye li fi nekk mooy ka yàlla doyloo ci xeet ka yàlla tànn ci xeet wi mu yónni ko ci jaamam yi di mooy ar rasulul mustapha sallallahu alayhi wa sallam kooku mooy ki la anamu sant yàlla ba nga war a sant yàlla gannaaw bi nga jëfandikoo xéewal bala yàlla baaxee te mooy nelaw ba tax na dala ne boo jëfandikoo xéewal boobu yàlla baaxee la nga jëfandikoo ko te mooy nelaw boo ci noppee danga nga war a sant yàlla wax baat yi te mooy ñaan ba yonent bi jàngale moo danga da war a wax ne alhamdulillahi alladi ahyaana baada ma amatana wa ilayhi nushur mboolem xeetu cant yalla yu matalay mboolem xeetu cant yàlla yu kawe ñeel nañu yàlla buur bi nga xamante ne moo ma delloo sama ruux gannaaw bu mu dogalee ci man dee bu ndaw te mooy nelaw ginnaaw ci mu delloo ma sama ruux te tamit bés bu ñu jógee ko ci kaw suuf si duñu dellu ci kenn du ñu dellu fenn fudut fa moom moo tax ñuy faral di wax ci njeexantelu ñaan bi wa ilayhi nushur ci moom rekk la ñuy dellu kon yow mi di julit bu dee yàlla wërsëgal na la nga jëfandikoo xéewal yam la yenkeewal xéewal yam la xéewalal bokk na ci xéewal yooyu an nawm mu ngi ñu naan ci naba moom yàlla mooy buur bi nga xamante ne moo def nelaw mu doon suñu dallukaay ba tax na nga dégg aaya bi ñu di la wax ci maanaa aaya wa jaalna ñoo def nawma nawmakum seen nelaw bi ngeen di nelaw subaatan ngeen di si am dalluwaay wi nga xamante ne du ngeen ko am ci fenn fudul ci nelaw kon yonent bi nee na boo jëfandikoo nelaw boobu yàlla def ca dallukaay ju mucc ayib ci nelaw boobu boo si noppee da nga war a sant yàlla ne ko alhamdulillahi alladi mboolem xeetu cant yu mataley mboolem xeetu cant yu kawee ñeel nañu yàlla buur bi nga xamante ne axyaana moomu dundal baadama amaatana gannaaw bum ma faatee ci nelaw mu delloo ma sama ruux wa ilayhi nushur te si moom ndong la ñuy dellu bés bu ñu tàqale ko dund àddina si kon képp ku nekk ci askanu julit yonent bi lim la jàngal ne boo jógee ko ci nelaw la nga war a njëkk tudd mooy baat bi yal ko yàlla yombalal ñu di ko baamu saa ne ñu bindal ñu ko xasanaat fil misaan ñaareelu xéwal ba ñu yàlla xéwalal mooy ci ginnaaw tuuti rek ñu ngi doon dégg noddkat bi di wax ma gaayu yàlla di seede ne amul benn buur budut yàlla waaye mu teg si ne kaay leen ci jokkale kaay ba leen di jokkale seeni borom te muy julli kaay leen remplir audience bu njëkk bi nga xamante ne mooy seen premier audience seen diggante seeni borom te muy julli kaay leen ci texe njeexantalu noddu bi nga dégg mu ne assalaatu xayrun min an nawm julli jokkale kaay ba leen di jokkale seen borom échelle ba leen di jokkaleeg seen borom de moo gën nelaw ba ngeen di nekkee nga déggee ci maanaa nodd bi muy wax baati salaatu julli xayrun moo gën mina nawum nelaw bi ngeen nekkee kon képp ku yàlla dégguloo baat bi njëlbeenu bés ba nga waaj a dund lii mooy la nga war a wuyu nga daldi di remplir condition ba ngay am ak sa borom mu nekk waxtu yu julli suba ñan yàlla suñu borom yal nañu ko yàlla kàttanal yal nañu yàlla jàppandalal ñuy faral di julli suba ci mbooloo gannaaw bu ñu déggee bilal bi di nodd ne assalaatu xayru min an julli de moo gën nelaw ba ngeen nekkee kon képp kuy jullit lii war nga kaa war a mën a remplir dem wuyu waaw bu dee soxna nag lañu sopp mooy na waajalal boppam laablu après mu daldi julli waxtu woowu ci biir néegam mbokk yi yal na jàmmi yàlla nekk ci yéen ak seeni njaboot di leen fàttali ne waxu boroom xam-xam su mag ña yaree ci keppaaru saxaaba ya nga xamante ne ñoom la yonent bi sallallahu alayhi wa yar ñoomit ña leen ci njeexintal bu jekk jooju ñoo ñooñu ñooy taabi'un kenn ci ñoom di xasanul basri rahimahullah mooy baaxee askan bi mu ne yow doomu aadama bi xamal ne dund àddina ba ngay dundu de ay bés la yay ñëw di jaar di jàll di wéy di dem ba tax na danga nga war a bàyyi sa xel ne bépp bés ba ñëw jàll xamal ne am na la mu yóbbaale ci sa dundu bi am na la wàññeeku ci sa dund bi ba na moo ne bindkat bi nee na qaala xasanul basri rahimahullah xasanul basri nee na yan na ko buur yàlla yërëm ibnu aadam yow doomu aadama bi innama anta ayyaamun xamal ne yow dund bi ngay dund di ay bés la ba tax na kullama dahaba yowmun bépp bés ba ñëw jaar jàll xamal ne zahaba baaduka am na la wàññeeku ci yow ba tax na loolu di wàññeeku ci yow mu di la jegeloo sa bàmmeel ngay gën a jege dee da nga war a waajalal sa bopp ci ay melokaan yu mucc ayib yoo xamante ne boo demee dajeg sa borom ding fa fekk la nga xamante ne yaa ko jiitalal sa bopp mu doon ay yiw ba tax na weneen taabiin di abdullahi bun awn rahimahullah moom it nee na yow doomu aadama bi xamal ne de tudd la ci nit ñi di wax la nekk ci nit ñi de loolu tooke la waaye nag la doon garab mooy tudd bi ngay tuddu yàlla loolu mooy garab nga déggee ci ne mu qaala abdullahi bun awn rahimahullah dikru nnaas daaun wa dikru llah dawaa abdullahi bun awn rahimahullahu nee na yow doomu aadama bi xamal ne di wax la nekk ci nit ñi nee na loolu tooke la loolu feebar la loolu jàngoro joo xamante ne nit ki moo koy créer boppam waaye nag nee na kaay jox la la nga xamante ne mooy garab garab joo xamante ne boo ko jëfandikoo di nga wér ci sa jëmm sa xol dina wér say cër yi dinañu wér ba tax na mu ne la wa zikrullah di tudd yàlla di fàttaliku yàlla di sabal yàlla nee na loolu mooy dawaun loolu mooy garab yow julit bi danga ngaa bëgg di jëfandikoo garab bi nga xamante ne médecin du la ko bindal del tudd yàlla yow julit bi danga ngaa bëgg di jëfandikoo garab joo xamante ne du pharmacien moola koy bindal del tudd yàlla yàlla dafa am limu laajte ci alquran borom bi nee ala dama bi dikrillahi ci tudd yàlla ah tatma innal quluub xanaa du dalum xel xanaa du dalum xol xanaa du lay wéral xel ak xol ci tudd yàlla donga la nekk tontu bi mooy axa ah, kañ la jiitu loolu boo yéegi ci kaw tuuti nga dégg aaya bi borom bi ne alladina gaa yi ngi nii ñoo xamante ne amanu dañoo gom yàlla wa tatmainnu qulubuhum bi dikrillah seen xol ak seen xel remplir nañ ko ci di fàttaliku yàlla di tuddu yàlla yàlla nee na nag xanaa dama ne ala xanaa du bi dikrillahi ci tudd yàlla tatma'innul quluub ci la xel di dale bu dee aha kañ mooy tontu bi kon yow doomu aadama bi jëlal sa cër bala yàlla dénk mu doon sa làmmiñ nga di ci tudd yàlla jëlal sa cër bala yàlla dénk di sa làmmiñ nga di ci sàbbal yàlla jëlal sa xol ak sa xel nga di ci xalaat kawteefu yàlla loolu dina la doy médicament bi ngay saafara jàngoroy xol loolu dina la doy ci médicament ba nga war saafara sa jàngoroy xel waaye loolu dina doy ci médicament ba nga wara saafara jàngoro ya nekk ci say cir su ko defee ngay tudd yàlla di xam baat yooyu ngay tuddu lañu tekki masalan bu dee danga jël ñaari turu yàlla la yonent bi ne kalimataani xafifataani ala fi lmizan mooy subhaanallahi wa bihamdihi wa subhaanallahi alazim nee na ñaari baat yaa ngi nii yu woyof toll ci làmmiñ ñaari baat yaa ngi ni yu woyof tollu ci làmmiñ làmmiñ bi war kaa mën a tudd mu yomb lool waaye nag mu diis gënn ci peese kaay jëfu doomu aadama ëllëg bis pénc waaye ñaari baat yooyu ñu doon baat yu yàlla sopp fa moom mu ne ñaari baat yooyu mooy lan moy subhaanallahi wa bihamdihi mboolem xeetu cellaange ñeel nañu yàlla ak mboolem xeetu cant yu kaway nga ne wa subhaanallahi al azim mboolem xeetu cellaange ñeel nañu yàlla ak dayoom ci màggaayam ñaari baat yi fekk yaa ngi koy tudd nga xam lañu tekki yow doo fi nekk di boyal sa làmmiñ di wax deru nit ñi ñaari baat yi dama ne fekk yaa ngi wax te xam nga lañu wundu xam nga lañuy tekki doo fi nekk di boyal sa làmmiñ di ko jëmale ci deru gor ñi dinga nga sàmm wanteg baat bi lañuy tekki da nga sàmm wanteg baat bi la mu la ci diisaay waaye dinga nga sàmm wanteg baat bi namu tollu fa yàlla ci cofeel ndax dañu la ne ñaari baat yi dañoo woyof ci làmmiñ loolu yow jullit bi yaa ngi koy wax amuloo ci benn problème waaye bayel xel ne yonent bi daf na la ne dañoo am dayo bu mag fa yàlla ndax yàlla da leen sopp fa moom bàyyil xel la yàlla sopp loolu lu mu war a toll ak la mu war a mel la yàlla sopp ñu ne la loolu woyof na ci sa làmmiñ ngir nga tudd ko kon yow danga nga war a tudd loolu ba keroog ngay sangoo suuf waaye malheureusement mala asaf waaw dañuy jaar jàll rek waaw dañuy jaar jàll ci xadiis yi ay ak ay ayaati la ñu yàlla sant duñ ko def benn ci man ñaar ci ñeneen ñi nga xamante ne la yàlla xam ñu doyloo loolu rek waaye yàlla ñu yàlla déggaloo lépp lu ñu jàng ci téere ñu ne la ñaari baat yaa ngi nii yu woyof toll ci làmmeñ nga essayé ko mu doon baat yu woyof ci sa làmmeñ nga ne subhaanallahi wa bihamdi wa subhaanallahi al azim mu doon ñaari baat yu woyof tol ñu ne la nag habibataani ala rahman ñaari baat yi ñu ne la yàlla buur bi tabaraka wa taala dalin sopp fa moom abo ah waaw waaw ñu ne la tamit saxilataani fil miizaan dañoo diis gënn ci peesukaayu jëfu doomu aadama ëllëg bés ci naka ñu la saa yoo ko waxee rek wàccee nañ ko ci sa peesukaay balance jëfu doomu aadama ah bon waaw waaw sa giiru dund yow munoo jël benn deux de temps toog di répéter baat bi subhaanallahi wa bihamdihi subhaanallahi alazim subhaanallahi wa bihamdihi subhaanallahi alazim ngi di ko répéter saa yoo ko waxee rek xamal ne wàccee nañ benn poids bu diis ci sa peese kaay jëfu keroog bés pénc sa peese kaay jëfu balance ba ñuy peese say jëf keroog bés pénc saa yoo waxee baat bi rek xamal ne am na lañu wàcce ci sa balance su peesu jëf keroog bés pénc waaw lii ëpp naa sàggane de mbokk yi lii ëpp naa sàggane kon nañ leen ko bàyyi xel bu baax a baax a baax a baax baax lii moo gën ñu boyal suñu làmmeñ ci ay débat ci ay wax yoo xamante ne kenn xamul fu mu soxee ko la ngay wax yow ci sa bopp xamuloo ci dara maîtrise ci dara amuloo ci maîtrisation nga nekk di tànqal nit ñi di gaspillage waxtu ci xiila waxaal ñu ne ma moone moo ilaa mata be kañ la ngay wax xamuloo ko la ngay wax amulu la njëriñ ngal la waay waxtu su néew nga épargnel sa boppa la nga xamante ne ëllëg dina la njëriñ te lii ci la bokk baat yi yonent bi dañoo woyof tol ci làmmiñ yàlla sopp leen fa moom mu doon baat yu am poids bu diis ci peesekaay yu jëfu doomu aadama ëllëg bés pénc ñu ne la mooy subhaanallahi wa bihamdihi subhaanallahi al azim géema la góor góorlu nga tënk sa bopp ci wax ñaari baat yi moo tax kii di abdullah ibn rahimahullah mu ne di wax li nit ñi loolu jàngoro la di wax li nit ñi neena loolu feebar la di wax li nit ñi neena loolu tooke la waaye di wax la ci yàlla di fàttaleku yàlla di tuddu yàlla nee loolu mooy garab ji nga xamante ne mooy faj jàngoro ya nekk ci xol yi ak ci xeli waaye mooy faj jàngoro ya nekk ci but yeeg làmmiñ yeeg cëru doomu aadama tuddu tudd yàlla mooy médicament bay faj feebar yooyu nekk ci intérieuru doomu aadama ak extérieuru doomu aadama waaw képp ku ko essayé nag di xam ba tax na ñu di leen fàttali ne rek bés ni ki tey mooy yowmal isnayn di altine mu tombek ñaar fukki fan ak juróom ci weeru zilhijja tombeeg gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mille quatre cent quarante cinq di leen fàttali ne rek des na suñu digganteeg tamxarit di ashura seize jours waaw fukki fan ak juróom benn moo des suñu digganteeg la nga xamante ne mooy ashura di tamxarit ñu ñaan yalla buur bi tabaraka wa weer bu mag boobu di shahrullahil muharram di weeru tamxarit buy ñëw yal nañu fi fekk buy dem yal nañu fi bàyyi te lépp lañ fa jaamu yàlla yal na ko buur yàlla nangu amin ya rabbal alamin mu tombeeg yowmal isnayn bisu altini ñaar fukki fan ak juróom le vingt cinq ci weeru tubaski mooy weeru zilhijja moo tombe gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mille su ko defee ñaan ba am ci calendrier bis di yomal isnayin mooy yow jaam bi del tàllal sa loxo sa borom di ko ñaan ne ko allahumma inni as'aluka thabata fi amr wal gazimata ala rusd waaw wal azimati alal rushd allahuma buuri yàlla inni asaluka man sa jàmbu loof bi maa ngi nii tallal samay yoxo ci say ngéneel ma di yàlla nga ma may athabaata fil amr waaw mbiru diine ba ma nekk ni yàlla nga ma ci dëgëral yàlla nga ma ci saxal nga bañ ma ci wàcce yàlla nga bañ maa teg nattu ba may wàccee mbiru diine ba ma nekkee nii mbiru diine islaam ba ma porte nii ma yennu ko ma nekk ci yàlla nga ma saxal ci mbiru diine islaam ba yonent bi andi sallallahu alayhi wa sallam waaye maa ngi lay ñaan bi léegi wal azimatu ala rushd yàlla nga ma may teddaange ci orientation bi nga xamante ni moom nga ma orienté waaw gindi ba nga gindi yow yàlla yàlla nga ma ci may teddaange ju mag waaw buur yàlla lii ma la ñaan ni yow dong yaa koy joxe ci sa nguur la nekk yaa koy joxe yaa koy maye yaa koy baaxe képp kilo sopp kon man sa jàmbu loof bi la ma la bëgg a ñaan ni amul kenn ku ma ko mën a defal munu ma koo sàkku ci kenn ndax amuñu ko xamuñu ko ba tax na yow mi ko am maa koy sakku fa yow yàlla yow mi ko xam maa ngi koy sàkku fa yow yàlla kon allahumma buur yàlla ñu nit ñu ngi talal suñu yoxo di la ñaan ñu lay wax ne inni asaluka thabata fil amr yàlla nga ñu may ñu sax dàkk yàlla ñu yàlla defal ñu doon ñuy sax dàkk ci mbiru diini islaam yal ñu yàlla wërsëgal ñu di ko dund waaye ba léegi ñu di ko ñaan walla azimata ala rushd yàlla nga ñu may teddaange ju mag ci gindi bang ñu gindi waaw gindeeku bang ñu gindi ñu tegu ci yoon bu jubbi bi waaw ndax gindeeku ci yoon bu jub doy na rek yàlla def la nga doon xëytu sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam rawatina nga doon julit bi nga xamante ne da roy ci ndigle yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba tax na nga ne ko ñu ngi lay ñaan yàlla nga ñu may teddaange ci orientation ba ñu orienté mu doon gindeeku bi nga xamante ne yaa ñu ko gindi ndax bu duwutoon orientation bi ñu orienté bu dee ñun ak gindeeku kaay ba ñu war a gindi suñu bopp mbir yi du sotti kon yow mi ñu gindi teg ñu si siraatal ya buur bi ñu ngi lay ñaan yàlla nga ñu may ci gindi boobu nga ñu gindi amin ya rabbal alamin xam nga buur yàlla dafa bokk ci eh, la bëgg doomu aadama bi mu di ko sàkku ci moom nga xam li la yàlla defal ba noppi nga di ko ci sant waaye nga di ko ñaan ne ko yow dong yaa mën a def lii kon bëgg naa nga defal ma lii wala nga may ma ci lii waaw kañ waaw ah, comme na ko beneen xadis andi ñee na yàlla dafa bëgg jàmbi de bu ko yënkeewale xéwalu àddina muy gis màndargay xéwal jooju ci moom waaw yàlla may la nga doon boroom alal eh, yonent bi nee na yàlla day sopp muy gis màndargay njeexentalu koom-koom jooju ci sa ci say mbir waaw del del del lekk lu baax del dëkk fu baax ila axirihi del de del bànneexu ci sa ci sa ci sa lala yàlla wërsëgal noonu ba tax na noonu la ñuy jaaree andil leen xadis ba nga xamante ne saxaabi bi de Saïd al Xudri an abi Saïdan al Xudri radiallahu anhu nee anna nabiya sallallahu alayhi wa sallama qaal abi saidin alxudri radiallahu anhu nee na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo ñu baaxee jikko ju noobul nga xamante moom la bëgg a wax si nii nee na yonent bi daf ñu ne iyaakum wal juluusa ala turuq iyaakum wal juluusa ala turuqaat maa leen di tere ngeen di toog ci yoon yi fa qaalu ñu ne ko maalana budda innama hiya majalisuna natahaddasu fiiha ah ñu ne ko yow mi yàlla yónni këri moom dañoo xaw a te amuñu feneen fu ñu war toog lu dul ci grand yi amuñu fen fu ñu war a toog fu ci yoon yi ndax béréb ya ñu moom dañoo xat te léeg-léeg climat bi day soppeeku ba tax na duñ fa war a mën a nekk ah qaal yonent bi ne leen fa izan bu fekkente ne toog mbedd toog ci yoon bi du mun a ñàkk ah ah li ma leen di wax nii de na ngeen ko motele ba tax na yonent bi ne leen ab yattum ila majalisa na ngeen rafetal toggin bi na ngeen ko jekkal ci nan yonent bi nee na faatu turqa faatu tariqa xaqaha na ngeen jox yoon bi àqam bu dee toog ci mbedd du ñàkk nangeen jox mbedd bi àqam waaw qaalu wa ma xaqa tariq qaalu ñu ne ko wa ma xaqa tariq ana lan mooy mbedd yow mi yàlla yónni qaal yonent bi ne bu ci jiitu mooy gaddul basar ci sa gis nga bañ a lu ne ñaareel bi mooy wa kafful aza na nga toppal lépp luy loraate ci yoon bi waaw nanga toxul nanga nga dindi na nga fànqal nit ñi nga xamante ni piéton lañu lépp la leen di lor ci yoon bi te nga gis ko na ko toxul xoolitu banaana na toxul sànni ko ci poubelle banta bay lor nit ñi na nga sànni ci poubelle bi ak li niroo nii li ni mel lépp luy lor nit ci yoon wi nang ko toxal jël jëlee ko ci yoon wi sànni ko fu kenn du jëfandikoo loole teg ko foo xamante ne kenn du ci mun a loru waaw mu ne ñetteel bi mooy wa raddu salaam na fay nuyoo ku la ne asalaamualeykum wa rahmatullah na ko fay ñeenteel bi mooy wa amiru bil maaruf na nga digle lu baax Euh, juróomeel bi mooy wanaahi anil munkar na tere lépp lu ñaaw hadis bi Buxaari moo ko solo mbokk yi képp ku tàmm di toog ci yoon yonent bi nee na bu fekkente ne toog ci yoon wi du mën a ñàkk na nga remplir condition bi ni mel ñuy laajte ba xam ñun mi tàmm di toog ci yoon yi ci buntu kër yi est-ce que ñu ngi remplir condition yi bu fekkee ne ñu ngi koy remplir alhamdulillahi rabbil alamin waaye bu fekkente ne remplir ñu condition bi nag ah gannaaw bi nga déggee kàddu gi ci waxtaanu fajar bi di jaar fii ci Rewmi FM 97.5 ci waxtu fajar wi na nga géem a góorgóorlu remplir condition ya nga xamante ne moom la yenentu bi ne lii mooy àqu yoon képp ku tàmm di toog ci yoon nanga remplir condition yi bu ci jiitu mooy nanga téye say bët bañ a xool ne buñ ne bët nag gémmiñ ci la nanga téye sa bañ a xool ne nanga téye sa làmmiñ bañ a wax ci lu ne ñaareel bi mooy wakaful ada nanga toxal lépp luy lor nit ñi ci yoon bi ñetteel bi mooy képp ku la nuyu bu ko dumóoyu danga koy fay waaw ñeenteel bi mooy na ngay digle lu baax lépp loo gis loo xamante ne c'est pas normal nang ko normaliser lépp loo xamante ne gis nga ne lii jëmul kër na nga géem wax ba mu deñ lépp loo gis ne lii day yàq pénc bi na nga ko defar ba mu jekk waaye wanaahi anil munkar na nga tere lépp loo xamante ne day yàq société waaw su ko defee juróomi condition yi bu fekkente ne mën nga kaa remplir kon yow war ngaa mën a toog ci mbedd bu fekkente ne mënoo koo remplir nag pour nga mën a nga bañ a bàkkaar ci say cër bañ a toog ci mbedd mooy li gën hadis bi Buxaari moo ko solo mbokk yi waxtaan bi jeexul dañoo yegg si fu ñu war a yëkkatee jotaay bi ñu war a joxe xibaar ñu ngi nii taxaw yore seen këyit ñu war a faram ci xibaar bi su ko defee ñu war leen jébbal bërëb bi